coowal ngor bi du tey. oui c'est vrai président woo leen partagé pour apaiser la tension mais waa ngor bi ñu dalee jàppante ci loolu bari na est-ce que euh, yéexu la woote. dañu bàyyi ba nga xamante ni euh, ay affrontement am na. bakkan rot ci président Sogo woo li nga xamante ni ñoo di les principaux concernés pour trouver une solution. bon sur cette question là ci angle bi nga ko gisee peut-être doon nga ko war a mën a gisee yow. mais sache que cette affaire la ba mu ba mu commencé les gens étaient en négociation depuis très longtemps les les différentes parties dans le cadre d'un dialogue communautaire muy la population la municipalité parce que euh, la mairie euh, état décentralisé la au niveau de la territoriale donc ñoom ñu ngi doon concerté wu au fur et à mesure ñuy dem jubóowuñu y avait une partie de la population surtout la jeunesse qui n'était pas d'accord qu'il voulait qui bëggoon ñu ériger foofu un Euh, ngor amul lycée te bëgg nañ seen i seen i seen jarbaat jàngi suñuy jàngi day déplacé wu. maintenant brigade de gendarmerie bi fa nekkoon biir ngor fi mu nekkoon day inondé ñu ne dañ koy tabaxaat pour assurer la sécurité des personne et des dañ koy taxaw ci dañ koy tabax ci ci six mille mètres carrés yooyu. Mm-hmm. donc quand les gens ont discuté. ñuy waxtaan ci foo fur mu à dans la discussion jubawuñu. sont rebellés jóg yaakaar ni affaire bi dañ leen koy forcé mais depuis le début discussion am na entre les différentes parties maintenant suñ demee ba mu gis ni dem nañ ca cëppaandaw ga le président de la République agit parce que euh, dans un état dafa am ay démembrement balaa président de la République di agir il faut mu bàyyi ñeneen ñi toog ñu waxtaan quoi. parce que la population. Non, la municipalité.